kini di Lat job justice su di Lat job justice Senegal, Sénégal na ay ndogal ci kawam mom mi gannaaw bañ ko téewee garde à vue ci lañ ko muju jàllale fee ca ba jamono ji mën nañ ni prisonnier la bi nga xamé ni justice bi mi ngi koy topé walu luubal ak sacc alolu réew mi mi Lat justice joxe na ndogal ngir ñu gelé kontam yëpp maanaam ñu teg loxo ci compte yi mu am ak ay bien wam moom mii di Lat Diop war na indi ay leeral ci huit milliards yoo xamante ni ñi ngi ko koy toppee ñun ñuy wax ni moom mii di Lat Diop jamono jii mi ngi ci guddi goo xamante ni dina yéex a bërsëg ndax moom mii di Lat Diop amul benn preuve bu mu mën a layalee alal bi ñu koy toppee ndaxte moom mii di Lat Diop c'était un simple fonctionnaire ba pare jaaree ci doon milliardaire. ñun ñii di askan bi ñi ngi rafetlu liggéey bi nga xamante ni justice su Sénégal mi ngi nekk di ko amal jub jubal jubbanti.